السلام عليكم ورحمه الله بوك انترنيشن فوتبول تي في نوي نالين بو باخ جيخ لين دي ام بكت ساس ني ديفال لين فيديو كوم ني ام غيسو خبار دم كاي دوري فلي تي ريال مدريد مي خامتاني دو برونوزي كي دي رودريغو ابر ني برونوزي فينيسيوس جونيور تكنين كي دي رودريغو مو نيك بن بون نوفيل بور سوبورتي يو ريال مدريد ا نوتك ريال مدريد نك امنا اي جور يو خامتاني فين دو كونترا لا ني نيك خامو دونك كوس ملني كروس كوس ملني مودريس كيس سيري جور يو خامتاني اكتيرمون ñoom ils sont libres tout compte 2024 bien prolongé euh, joueurs yi mu leen ou pas à noter que nag euh, selon ay taskatu xibar ma ko don di sans sur foot mercato ñoo ngi xamalee ne Real prenait sur le dossier Mbappé mais xam leen ne lool mom saa du deug parce que tout li ñaata yoon lañ ko dégg après ñu déggaat le contraire avoir na nga waa Real lañ ñu def parce que xam naa ne nekk na dossier boo xamante ça sax soof na yenn supporters yi et ça se comprend damay ñëw du ma euh côté Barcelone côté Barcelone euh, voilà sept jours yu xamante ne bëgg nañ leen donc ki mo leen bëgg Deco Deco mooy ancien joueur de Barcelone de Porto mo nek sen directeur sportif Kimmich ci la boko Florian Gliwice si la bokk nekk fële ca Bundesliga Mitoma xam nga ko bu baax Brighton c' est des joueurs yu xamante ne comme ça euh, ba si ay Nico Williams euh, Messinho xam nga donc ñu wax William moom fa la nekk Palmeiras fële fële ca euh, Brésil Olmo xam ngeen que mu nekk Leipzig si est des joueurs yu xamante ne waa kii bëgg nañ waa waa Barcelone ñoom nag jamono bi moom la bëgg kii di Tanak sur le départ la ko waral lan la dañ leen fekk seen dëkk dum leen dumuy métti Newcastle coupe dañ leen dum ba tax na entraîneur bi ñooy wax ne ku maytul dañ ne support kii supporter yi rek joueurs yi sax avoir information yi euh, fan la ñuy mujjee ak euh, entraîneur boobu. tirage coupe de la ligue bi nag génne na ñoom Chelsea bu bu ñoom euh, suñu gaynde bi démb gagné nañu xam muy muy muy. ñoom Nicolas Jackson ba tax na euh, match yi lii la Everton bu ñoom Gana Gueye moo dee ak Fulham Chelsea mooy recevoir Newcastle bi toogloo Manchester United Porto Vale mooy équipe ndaw bi moo bu ñoom suñu gaynde bi euh, seeni Timothy Dieng ay mu nekk ay match yu xamante ne na neex dernier match bi nag mooy Liverpool West Ham lii mooy quart de finale coupe de la ligue donc en espérant que suñu ñaari gaynde que ça soit Everton bu ko jëlee dina doon lu ñuy neex wala Chelsea aussi tamit bu ñoom euh, Nicolas Jackson dinañu neex lool ndax Sénégal yi rek lañ fi nekkal wa Marseille selon taska xibaar bi ñu wax le Foncé dañu nekk nag di chercher euh, un un vrai concurrent nekkatuñu set ñu remplaçant un vrai concurrent Ismaïla Sarr donc Ismaël Sarr étant que ñun ñëpp ay sénégalais lañ fii nii ci réew mi bëgg la lool ak ñi nekk bitum réew liñ la mëna jox conseil mooy nga fighting once waa Marseille ne euh, la fekk ñu jënd la jox la un bon salaire xam nga yow am na ay qualité yu xamante ne yaa war a nekk toutes les indiscutables maanaam waruñu sax ne fi di débat ba jamono bi ñu ne euh, janvier dañuy seet concurrence et on sait que janvier aussi euh, Ismaël Sarr normalement moom la ñu ñaan day dem Coupe d'Afrique yàlla bu mu am benn blessure comme Coupe d'Afrique bi passé te bu boobaa concurrence moo fi nekk mais ak lu ci mënti am ça Ismaël Sarr man pour man moom moom moom moom moo moo situation am moom moo destin bu defee lu baax du mës a jóge ak kooku mën a andi. Marseille seen match bi ñoom ak Olympique Lyonnais bi xam dañ ko reporté woon à cause de Grosso Grosso bi xam dañu sànni si bis muy entraîneur bu bu Lyon ba affaire bi gaañ si écart bi naaj deret bi bëri lool ñu reporté woon match bi xam moo am dimanche bi yóbbu nañ ko nag ba le 6 décembre. yóbbu nañ ko ba le 6 donc mu nekk benn match en retard pour Lyon suñu gaynde bi Edouard Mendy démb seen équipe dañoo toog dañoo toog euh, muy euh, coupe bi xam mooy seen coupe du roi bi ñoom Sadio Mané qualifié noonu ba Sadio Mané dugal bii noonu euh, ñoom nag aussi dañ doon joué ñu gagné leen du coup ñoom ñoo appelé ay trophée si trophée boobu ñu ngi si appelé ñu ngi si gagné quatorze mais malheureusement pour ñoom Edouard Mendy voilà dañoo mujj a toog Sadio Mané au secours de euh, suñu gaynde bi di euh, Sadio Mané au secours de Cristiano Ronaldo la bëggoon wax naa maanaam moo koy aidé je pense que jëro won sax ñuy lire ay article pour xamné ne Sadio Mané doon jàppale ki di euh, coéquipier di Cristiano Ronaldo bi ñu fa nekk naan Messi Messi Messi Messi di way motax bu mu bi mu lo xam tek nopp bi et donc loolu presse saoudienne bi loolu la génne presse mondial bi loolu la comme quoi Sadio Mané dafa ñëw na Cristiano Ronaldo frère la xam moo tax bi mom la ko may sax mom la ko dédicacé xam nga donc euh, di ko ñu bëri nag relais que que ça soit Angleterre France fii ci réew mi ba si euh, foofu ca ca Arabie Saoudite en tout cas euh, mu nekk un grand match boo xamante ne Sadio Mané génn na leen si donc ñu qualifié lii di quart de finale Coupe du Roi boobu fële ca Arabie Saoudite ma jeexalee xibaar yi par euh, Bouna Sarr Bouna Sarr nag mauvaise nouvelle la am lan moo tax mu am mauvaise nouvelle xam nga ne Bouna Sarr foofu ay bout de match les lay lay joué bayaana bu bu amee cinq minutes dix minutes dix minutes bëri na lool lenn la mënoon a joué tout le temps muy coupe coupe bi xamante ne coupe d'Allemagne démb lañ doon dee équipe troisième division

mooy année bi bu jeexee nga libre dem fu la neex ta da nga am un bon salaire et que mën nga amaat un autre championnat euh ou bien tu te dis man janvier je change de club j'ai besoin de temps de jeu euh lolou tamit lolou la mën a en tout cas c'est une mauvaise nouvelle le fait que Bayern Munich tok donc lolou dafa yaaxal bu baax ba ki di Bouna Sarr mbokk yi li mu xibaar yi xamantene ne bëggoon ko partager ak yéen ci commentaire wax leen sen seen ak sen gis-gis ma jaajëfal leen wax leen ba benen sur sen football TV